jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz TV Babacar jërë ngeen jëf ñu amati mbégte contentement bu baax a baax ñu amati mbégte bu baax jano ak ki nga xamante ne mooy Serigne Cissé ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ne ci mbirum faj ah ci loo xamante ne taxawaayu doomu adama yi ak dimbali bi muy dimbali doomu adama yi seen i jàngoro yaram ak seen i jafe-jafe àdduna sëñ Cissé di wax nommoon nañ la lool ñu ngi lay siyaare bu baax baax di wax ne ñoo jóge woon ci gàmm nag lépp lu ñaan ci gàmm rek yàlla ko yàlla suñu borom nangu yàlla defal ñëpp tawféex defal ni ñu jàmm ak salaam sëñ Cissé ñu ngi leen nuyu baax di la siyaare aousubillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mbokki julliti mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant ji jiita ci nuyu bi sëriñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko lool te mbor di ñaan la tarixa yëpp tiijaan xaadir laa indi seen ñëpp saa borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu te nu wér mm-hmm. di wax ci gàmb gi ñu jógee mm-hmm. lépp luñ ci ñaan rek yàlla na ko saa borom nangu mm-hmm. képp ku fa yoroon jàngoro boo fa jógee yàlla na jàngoro yettane ku fa deman tamit am ak jaaxle yàlla nga dem suñ borom gindi la ñoo ngi lay nuyu abo bu baax di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp di ni jërëjëf Serigne Cissé kaddu yooyu am na solo dañuy dooree li nga xamante ne mooy waxtaan wi waxtaan tamit dina am solo lool parce que ñu bari dañ doon naan sëñ Cissé ci côté noob gi sëñ Cissé côté noob gi sëñ Cissé gis li nga xamante ne mooy ci côté seet tamit yàlla suñu borom may na la ci lool lool lool lool lool sax ba sarax boo ko gën la nit sax day faj ay ajo doomu aadama ci côté seet na tey laay duggee yow sëñ Cissé waaw abu ñaan moom bi njëkk muy seet nit ki moom mënoo ñaan te mënoo seet nit ki ta mën a seet te mënta ñaan mm-hmm. ñaar yëpp ngay boole ñaar yëpp nga pour nga boole ko nag am ko mën naa yomb mm-hmm. wante docteur bi sax boo feebaree boo ñëwee si hôpital bi li muy njëkk muy seetal la donte yow mi ànd ak malaat bi sax danga ko doon dalay laaj ni la kañ la kañ la ko dala nag kañ la ko daaneel ak ak nu koy def wante li ci njëkk ci docteur bi da koy seet même bu la digloo ba pare da koy seet. Mm. kon man aajo joo ma mën a wax moo xam bopp bi métti moo xam da nga am jafe-jafe moo xam soxla soo mën a am boo ma woowee téléphone tamit bi njëkk muy dama lay seetal. Mm-hmm. seetal la laaj la sa tur ak sa sant ak sa turu waajur yi jéen ak santam. Mm-hmm. bu ma ko xoolee ba pare lu ci mën a xew la ma lay woo wax la ni la nangam ak nangam ngay def nangam ak nangam ngay def mm-hmm. bu dee dafa aaja aaja sarax boo xam tamit nag wala da ngay ñaanlu boole ko ak sarax wala da ngay génn sarax bi loolu rek ngay def bu dee ci côté seet gi nag moom ñoo ngi ciy seetal ay doomaadama yi nga xam te moom lañ suñu borom boole ñuy jëflanteeg moom te seet gi li jaaxal doomaadama yi ci boppam ci wàllu seet gi mm-hmm. muy nit daf may woo di ma seetloo ni ma ñaata ngay seete ma ne ko loo yónnee baax na ma seetal la. Mm. léegi rek ñu bari dañ leen di jaaxal dangay gis sama mbokki mudu mudu yi dañuy jékki-jékki ni ma ah loolu day yéeme na jafaa ñun dañu woo nit mm. di wax seet gi mën a ay vingt mille dugale vingt mille dugale dix mille dugale quinze mille seet gi moom amul prix mm. ndax niñ ci jotee ak ni ma ko jànge jàngewu ko noo xam ne ak ak fayil ak prix la moo tax loo indi rek dañ lay seetal bu la seetalee wax la li nekk ci yow bu dee loo xam ne dafa war a ñëw ci yow te bokkut ci yow danaa la lii kat dina la dal wala lii kat dina ñëwi ci yow te bokkut ci yow fexe kaa protéger bala moo agsi ci yow bu dee loo xam ne dafa war a ñëw ci yow dinañ la xoolal sarax bi nga xam ne moo koy xëcc pour mu mën bu ñëwee ci yow tam mën na jur a jur salaam mën kaa oyofal mooy li njëkk ci ak ñaan loolu am na solo lool ci côté li nga xamante mooy ci côté seet bi seet mu nekk loo xamante ne lu am solo nag ci côté ñaan parce que léegi-léegi yaa ngi koy wax mais comme seet am na ñoo xamante dañuy dañuy xaw a yàkkamti. waaw yàkkam man moom sama tey bakkat laay def ndax euh, boo ma woowee dama naa la may ma quinze minutes dans quinze minutes ma seet la wala dix minutes mm-hmm. bu ma occupé wul noonu laa lay bu dee damaa occupé nag par ab liste rek mm-hmm. damay topp ki njëkk woote ba ci ki mujjee woote noonu laa lay def wante bala may tëdd ci lal moom dinaa leen seetal yéen yëpp mm-hmm. mm-hmm. bu doon juróom fukki ne la tam bala may tëdd ci dinaa leen seetal ba soobee yàlla mm-hmm. incha allah seet ak listixaar ban moo ci gën a gaaw pour ngeen gis li nga xamante ne mooy aajo doomu aadama bi waaw loolu yëpp benn la rek léegi dañ kaa wax listixaar lii ni seet wante yooyu yëpp benn la listixaar moom mi ngi aajowu ci alquranul karim mhm. seet tamit am na yoo xam ci alquranul karim ci lay dox mhm. wante bu dee li saxaar tey ji daa am yoo xam ne da nga koy def tëddaaleeg moom bu dee seet da yoo xam ne ramli lay nekk mhm. yoo xam ne mën nga di ko defee fii si kayit am yoo xam nag mën nga di ko kii ci suuf di ko di ko tomb ci suuf am yoo xam ne tey jii nii ci suufus géej lañ koy def am yoo xam tamit bari na ay façon yoo xam ne seet daal dafa bëri ay façon yoo xam ne dafa bari waane bu dee seet lu mel ni seetu ram li nga xam ne moom laa ëpp lu may seet seet googu moom dafa nekk seet goo xam ne daanaka lum la génne lu nekk rek moom wallaahi la si macha allah ndax moom mën na lay génne loo xam ne nit ki sax ngay seetal day jommi day jàpp ni sax nit da ngaa wax ci yow dara wala bu leen boolee sax day jàpp ni ki leen boolee da ngaa wax ci yow dara wala mu jàpp ni yow mi kat. Ehm, eh, moom doo nit wala nangam dafaa nga seetal ni sax ba pare yéemu ci yàlla naa la doo nit yow laa doon wër yow laa doon sëñ bu mel nii laa doon wër te fekk rek seet moo demee noonu seet man na laa wax loo xam sax yow day nekk sa yaram bi nekk sa xol bi ngay seetloo nit ki di xaar nit ki tudd loolu far nit ki njëkkal la kaa tuddal ba loolu day xaw a jaaxal de waaye lépp ci seet lay nekk hmm, waa da ñun seetewun pitaaw ci suuf ramli la ni seete ak yeneen yoo xam ne saxaar ak yoo xam ne tey jii nii yoo xam ne tey jii nii yeneen façon seet la yoo xam ne tey jii nii ci alxuraanul karim kese lañ koy seet. Mm-hmm. wante loolu la ci wax moom bu soobee yàlla looloo nekk. Mm-hmm. incha allah jërëjëf sëñ Cissé kaddu yoo am na solo ci ko di seet sëñ Cissé ñu ñëwaat rek eh, ci mbir mu li nga xamante ne mooy ci mbir mu noob parce que yàlla suñu borom mel na ci loo xamante ne àdduna bi ñëpp koo dégg rek daan la noobu sëñ Cissé yi. waaw loolu moom ak sant yàlla la. ndax man moom nee naa la ab jaam laa lu am lu nekk yàlla lay neex lu ñàkk am yàlla lay neex mm-hmm. moo tax ba suñu mbir si yàlla lan ko teg wante jëmmi noob gi moom moo ngi fi ñoo ngi ciy liggéey ci yeneen i façon mm-hmm. di ci liggéey tamit ci yeneen i demen ndax yaakaar naa jamono ji li gën a sonal doomaare muy sëy yi yëngu sëy yi yëngu ak tey jii sëy yi nga xam ne tey jii daa war a taxaw te taxawul mm-hmm. nga gis xale bu góor wala xale bu jigéen di ngoro wante ñuy ngoro ci seen biir ba dem ba sëy jot xale bu góor bi yónnee ñu naa ko may ñu tuuti xale bu jigéen naa ko paree gumaag damay jàng sama yaa nee na damay def léegi loo lépp moo fi war a jeex ñaari nit bu bëggantee te xam ne góor gi mën na kaa yor ku jigéen ki bëgg na ko nan fexe loolu am mm-hmm. des nag li koy amal li koy waral muy sëy bi mën naa dem ba ci biir a biir a biir ngoro nga dem ba bëgg ndaw si ndaw si naa la may ma tuuti la koy xaar la du ko xam ñaareel ndaw sa mën naa yor ay mm-hmm. mu lay loo loolu nag bu dee dala kaa def boobaa boo ñu woowee dan lay wax ni la nangam ak nangam moo ci ne boo ko defee nga jóg ci loolu bu dee wàll da dangaa dem ba jóg ci pour ñu noobal la ko bu soobee yàlla da ngeen sëy bu dee yow mi nga xam ne tey nag dangaa sëy ci kër amoo jàmm amoo salaam ndax ku xam-xam sëy ci kër dafa metti ndax njëkk yeeg goro yeeg nangam naa jaman daa xaw a changé moo tax daanaka réglé tun moo tax boo sëy see ci kër rek li njëkk yow dama lay wax ne la ñaan loolu bala ngaa sëy ndax la nga fay wante bu dee da ngaa sëy say goro mooy ñu lay jàmm sëy njëkk mooy ñu lay jàmm mm-hmm. nga xam ne sëy yu bari yu tas ñaari ñoo koy tas muy goro njëkke wante bu dee da ngaa sëy si amoo jàmm boo ñu woo ci kàttanu la am na xeeti noob yoo xam bis bu la ko defalee mm-hmm. sa jëkkër moom da nga koy suul wala mu suul la moom dee rek leen di dàqale si jàmm ak salaam même lu leen mën a jotewaat da ngeen di àndaat da ngeen di àndaat bu dee yow mi xam ne tey nag dangaa nekk ak jigéen bëgg takk yàlla def na nga koy xëccoo moom yëpp boo ñu wooyee bu dee war nga cee jot danaa la war nga cee jot defal bunt bi nangam ak nangam ngay jaare ba jot ci ndaw si mm-hmm. bu dee nag koo xam ne tey ji dafa bëgg borom kër te mu yàgg naa toog amul borom kër kooku dañ koy xoolal lan moo tee ay mbiram ba wat ba amul borom kër ba heure bii mm-hmm. bu ko defee ñu jaar ca loolu nag liggéeyal la ba suñ borom ñoddil la borom kër mu ñëw ci say tànk mm-hmm. bu dee nag da nekk koo xam tey da ngaa bëgg mu takk la boobaa tamit dañuy xool ba xam yéen ñaar seeni rawaxaan dëppoo na seeni tabixa dëppoo na ñu jéem leen a boole ba yàlla dogal ngeen sëy am ci wante nee naa la am nañ ci xeeti noob yoo xam ne <clears throat> lépp ci alxuraanul karim ci lay dox ak ne ci sulmaan yi ci lay dox wante loo xam ne tey xool naan sa tabixa ci alxuraanul karim ci lay dox mm. dañ lay liggéeyal ci alxuraanul karim bu ñu xoolee sa tabixa xam ne ci nuura sulmaan yi ci ngay dox muy wàllum sunguf ak takk mm. dañ lay liggéeyal ci côté boobu wante képp koo xam ne defal na la nopp moom ci kàttanu yàlla muy tubaab muy njaago muy ku mën a nekk dana la jàpp te diiran bi mu lay jàpp du yàgg mm. waaw loolu daal laa am lu ma lay wax ci nopp nopp daanaka ñi may gis wala ñi jëflante man xam nañ ci cadre boobu daal mm-hmm. jërëjëf sëñ ci li nga xamante ne Babacar lu ñu waxtaanee ci côté noob muy nekk li nga xamante ne mooy yàlla suñu borom ko ci amee ba ñu bari dañ koy dañ lool lool lool lool sax beneen bi nga xamante ne mooy waxtaanee sëñ Cissé ci mbirum mu kaaraange jamono ji ñu bari soxla nañu kaaraange seen i bopp parce que tiitaange gi bari na ci nit ñi alal yaa ngay yàqu nit ñaa ngay lu ne mu leen arrivé di leen dal jamono ji ñu waaw kaaraange moom tey jii nii sëñ sëñ Mbay Jaxate dani sëñ Musaa Ka am sëriñ mooy li wér boo amul sëriñ mm-hmm. am kilifa mooy xawma nu ko waxee na mooy li am solo boo ko amul amoo solo mm-hmm. boo ko amee am nga solo ku ku ku wérul day yomb ba ma wante kaaraange boo ko amul daanaka da ngay no yomb ba max abu bari na gis nga xale yu gàtt fan yoo xam ne tey jii nii avenir lan aman ñu leen di commencé gis nga xam ne ñii seen mbokk xam na ni mhm. bu dund gi bu leen fi dund gi bàyyi dañuy tekk nga gis xale yooyu gàtt fan ñaareel li ko waral lépp sabablu suñ borom waan li ko waral lépp kaaraange ci la bokk ban ban dem mhm. ñàkk fonk kaaraange wala ñàkk am kaaraange moo tax suñ borom def loolu sabab boobu ban ban dem ci yowmal xiyaam gis nga kaaraange danoo toll moment boo xam ci Sénégal boo ko amul rek daanaka jëratul ngay sori fenn ndax réew mi tàng na da ngay gis liggéeyante bi tar na da ngay gis nit sax def bagage yoo xam ne nit la koy def yow nit ka ëpp la bopp nga jaar fay liggéey ba topp la. liggéey boobu nag mën naa nekk ci yow ba faat la da ngay gis ñoo xam ne ci tiktok bi la nekk ñoo xam ne ay ay nit yoo xam ne ñu war a am tur lan ëllëg gis naa xale yoo xam ci tiktok bi buñ defaroo ñu war a am tur ëllëg la ñun war a dégg ëllëg la wante da ngay gis ay gàllankoor moo leen di dal gàllankooru cat ak gàllankoor yoo xam ne nit ñi dañ leen di liggéey ak gàllankoor yoo xam ne tamit liggéey jàmbur ci leen dem ba dal ci loolu nag moo leen nar a dem ba indi leen i nga xam ne problème bi mu leen indil muy bu nekkoon ci seenub liggéey da ngay gis ñu jikki-jikki euh, gàllaaj bu la jàppee dëgg-dëgg da ngay gis boo nekkoon sab liggéey da ngay commencé taayal ci sab liggéey boo tëddee doo mën a nelaw bala ngay nelaw day metti dangay ngay di wëlbitiku rek mu lay def yenn saa yi mettitu bopp yenn saa yi muy tàngal sa yaram bi yenn saay yi da ngay jikki-jikki sa xel mi mel ni lu jaxasoo nga mel ni koy absent wala yenn saa mu jàpp sa xol bi di ko def nii sa xol bi naa tëf-tëf yooyu saa boo ko gisee rek xamal ne gàllaaj jàpp na la wala sa ndigg bi jikki-jikki di métti wala sa côté yi jikki-jikki men daa am lu ci nekk nga xam ne boo toogee ba si yàgg nii ngay def mm-hmm. boo too defee nii ba si yàgg defaat nii mm-hmm. nga xam ne yow da ngay xam ne sa jëmm am na lu ci nekk wala sa tànk yi mel ni luy crampe wala luy naga wala ay sangalañ ci dox si yooyu saa boo ko gisee xamal ni laaj Euh, jàpp na la liggéey jàpp na la bu dee nag amaana koo xam ne day toog tànk yi mel ni luy karampo luy nagam am na beneen signe boo xam da koy def muy seytaane da koy def saytaane day jigi-jigi bu la jàppee dëgg day jigi sa tànk mel ni luy nagam wala sa tànk mel ni ay sang la ñuy toog nga xam da ngay gaaw karampo yooyu tamit signe saytaane da koy def wante nee naa la kaaraange kuy dund ku nekk war na koo yor nit ki war ngaa yor dara loo xam ne tey jii ni saa bu la nit fëggee war na kaa gis ci yow ndax amul ku nit ñi du xeebuñu kenn mhm. xeebuñu kenn kenn amul kun xeeb buñ la giseen sax nga sol benn tiise bu rafet rek am na koo xam teg na ci bëtam ba ne kii warut a sol lii te man man maa ko war a sol fii dana toll jamono joo xam ne doomu diw du dem sama doomu war a dem lan oh. tool moo tax nag yow war ngaa protéger wu sa bopp bari naa ñoo xam ne tey ay commerçant lan yoreen ay millions wala ay milliards yoo xam tey ji ay bitig la danoo dem ba mbir ma seey mm-hmm. ngir lu leen ko ñàkk ñàkk kaaraange ak rab moo leen koy dem ba defal ko bu ko defee day dem ba ñaare bu dajekee day dem ba loo yoreen ay milliards wala ay millions day dem ba seey jeex tàkk mm-hmm. moo tax man am na xeet xeeti kaaraange yoo xam buñ la ko xasee ba liggéey dafa bari am na yoo xam ne moom bis buñ la ko liggéey de dund gi ngay dee moom jurul ngay ñaan ci wàllum kaaraange mm. sangu dama ni dee leen sangu man mii di wax ak yéen di leen dig leen sangu laa jóge ñëw toog fii dee leen sangu ku sanguwul laa la wax barkeb al ku dul euh, tooy di dëkkee wow bu yàggee dana la yóbbu ca wowkat bu mag ba dee leen sangu bañ ji bañ ji wow wante am na xeeti kaaraange yoo xam ne bis buñ la ko liggéey la dee rek moo la koy tax loolu den ci yow daante képp koo xam mi ngi lay njabarate moo xam da lay kort moo xam da fitis moo xam lu mu la mën a def mm-hmm. bu soobee yàlla du agsi ci yow da ci moom lay delluwaat mm-hmm. am na yoo xam ne ku loolu laal moom day dee yooyu yàgg naa di ko wax am na yoo xam ne bis boo ko sangoo nag nit ku jëlab oto moom naa da lay liggéey ji dem ci dem di dem ci sëriñ mm-hmm. ci yoon wi lay accident moo xam oto la jël moo xam moto la jël ci yoon wi lay dee ci yoon wi lan lay woone la faat mm-hmm. am yoo xam ne ku la ko def nag bu soobee moom day tëdd feebar day tëdd feebar day tëdd ba kerek dina am loo xam ne bu tëddee ba guddi dina am lu ko feeñu wan ne ko diw mii ngay liggéey demal nga baalu ko àq bu dee dafa dëgër bopp moom ci loolu lay faatoo bu dee dëgër bopp nag bu la baaloo àq boobaa suñ borom day wàccuwaat liggéey boobu mm-hmm. jërëjëf sëñ Cissé comme di nga wax léegi léegi léeg bu ñu waxee ci kaar bi dañuy wax ubbukaay parce que nit ñi dañu bëgg di ubbeeku parce que jamono ji métti métti nga xamante ne nii mbirum ubbeeku da cee baax te yor nga ci ay mbiru ay ubbeeku yi am solo lool lool boo xoolee sax suñu émission yi ñu doon def ci ginnaaw da nga doon wane ubbeekaay yoo xamante ne nii ba léegi gisuguñu nit koo xamante ne def na ko ci jamono ji ñu toll ci xeetu ubbeekaay yi nga doon def waaw ubbikaayoo moom dafa nekk xam-xam yoo xam xam-xam yu mag la. Mhm. dafa yii dafa nekk xam-xam yu séeréer la yii nekk yoo xam ne yu pël ak yëpp la ni boole ak yu alxuraan yi. Mhm. moo tax doo ko yomb a gis te nee la man daanaka yëfi xale soxlawu ma ko yëfi mag ndax yëfi mag ci laa li ma doon yëfi mag nag moo tax ba daana yëfi xale damay dem ba tëbal ko sama bët. Mhm. di yóotu yëfi mag. te xale dafa xale buy ànd ak mag di dox doxinu mag di def yëfinu mag kooku mën naa yor yëfi mag mhm. wante ubbikaay dafa doon loo xam ne moom it lu am solo si la si doomu aadama ginnaaw ba kaaraange jàllee mooy ubbikaay moom moo si topp ubbikaay nag jamono ji dana toll jëm noo xam ne dafa metti lool crise bi am réew yëpp a ko yëg muy bitim réew muy Sénégal fépp ñooy yëg crise bi mhm. loolu nag li koy waral tey jii nii suñ borom musal la ci crise bi wala fexeel la ba jàmmal la ci crise bi mooy nga defar saw yaram abu nee naa leen ba tàyyi aw yaram dafa war a neex aw yaram daa war a neex kaaraange ci la bokk aw yaram daa war a neex mbirum cat ci la bokk aw yaram daa war a neex mbirum seytaane ci la bokk mm. aw yaram daa war a neex mbiru ubbikaay ci la bokk yii yëpp da ngaa war a fexe ba të ko am naa ci kaaraange yooyu noonu ma lay wax xeeru xeeru teen bu të mi ngi ci biir wara naaka ak génn xeeru teenu tël la yu baree bare ba nga xam ab lim nga ci wut boo ci wutee lim loolu boo ko liggéeyee ba nit ki sangoo ko ba pare ma wax ko ni muy def xeer yi yow moom tënga doomu aadama nin xam nga xeeru teen bu të dañuy gas ab teen di ko gas di ko gas ba sonn teen bi lànk ni du génneem ndox mooy mooy teen bu të xeer yooyu tey buñ ko jëlee nag am na nun la koy liggéey ba defal la ko saafara buñ la ko defal la ba nga sangoo ko ba pare nga jël xeer yi am ko def mm-hmm. xam na ni nit moom du la liggéey ba jàpp la te lii làmmañ moom suñ borom dina la ci musal bii suñ borom dina la ci musal ndax dangaa te ñoom ñëpp ñëpp ngay te moom mm-hmm. wante nee naa la ubbikaay dafa doon loo xam dafa am solo abu am na ñoo xam ne tey jii ni mën na na yore milliard wante bu tegee seen loxo bi day jàll am ñoo xam bu ñu yoroon un million balaa semaine bi lépp ni pëng jeex tàkk am ñoo xam ne loo leen dig loo leen dig duñ ci jot boo ni leen cinq cent mille ñuy séq ak nit war leen a jox xaalis bu ñëwee ne cinq cent mille laa jox mu leen di gàntal gàntal ba gisante ba am ba gisante ba am da ngay yëkkati deux cent cinquante mille la koy mu jox mm-hmm. da ko jox cinq cent mille yëpp kon loolu nit koo xam ne am nga loolu rek ay jafe moo ngi siwam wante ubbikaay moom am nañ ci yoo xam ne bés buñ la ko defalee am nañ ci yoo xam ci xaalis lañ koy boole am yoo xam nag baati alquranul karim yi la ñuy jël yooyu yëpp la ñuy ràbbale nga xam ne ci xeeti wërsëg ci lay dox mm. moom lan lay booleel defal la ko ay sangat am yoo xam ne ci sunguf lay dox ñu defal la ko sangat wante yooyu yëpp ko rek comme ci commencement bi émission bi rek ci ak seet moo koy njëkk ne mm. boo nee ma samay mbir daa tëj tam dama lay xoolal ba pare lu ci aajow ma def ko wante ubbikaay mu am nañ ci yoo xam buñ toogan fii di ko fa suba mm. duñ fi jógee ndax bari na wante nit ñi dee leen sangote di mos di mosale dee leen sangote di mos di mosale mooy dee leen defar seen yaram mi ay xeeti ubbikaay ki kaaraange nit ñi di leen man di jox xeewal ngeen di dimbali waate mm-hmm. loolu mooy mos di mosale mm-hmm. wante ubbikaay moom abu am nañ ci wax bu ñu fii ba suba mm-hmm. mm, dama naa la man naa jël émission bépp te du jeex wante dee leen defar seen yaram am nañ ci ubbikaay yoo xam ne képp koo xam ne woo nga nu rek danaan la teg ci programme bi nga xam ne tey jii nii am na yoo xam day ànd ak xeeti sarax boo ko def ba pare daa am yoo xam ne da nga koy saraxe am yoo xam day ànd ak xeetu xeetu xaalis mm-hmm. boo sangoo ba pare nga jël xaalis boo fexe ba xaalis bi woo nga dem jaay ko mm-hmm. noonu nga ko jaayee nag noonu la mbir mi duggal ak génnante am na mm-hmm. yoo xam ne boo ko sangoo ab doo banque mukk saa boo xeetu da ngay barke alxuraan kër jërëjëf sëñ si kàddu yi am na solo gi balaa ma laaj na ci jamono ji ci mu ngelaw yeeg seytaane yi am na loo xamante ne jamono ji mooy ci côté actualité tuuti ci diggante combat Ama Baldé ak Modou coola coow la bari na ca trop ñi ñu naan dina am ñi ñu naan du am coow laa ngi fa toog ñi ñëw tamit ci combat Ada Fass Zos ah ci Eumeu Sène tamit ak ki nga xamante ne mooy ah, Tapha Tine mais nañu njëkkee ci combat wu Ama Baldé bi coow li bari na ci waaw combat moom coow li dina bari xam nga lu tax coow li dina bari mooy combat boo xam dañ kaa tëgg ay at mënta am mm. coow la dana bari te Sénégal lun lun bëgg a may bës danañ ko may bës lun bëggut a may bës nag duñ ko may bës Ama di xale war a ci buntu àddina mooy làmb ji mm. Modou loo nag nekk roi des arènes nga xam ne tey ji li doon prouver ci làmb am na ko kon ñoom ñaar bokkuñu mm. man man sama gis-gis damay wax ne Ama Baldé moo wara gën a bëgg combat bi ndax Modou ba mu ko bëggee ci Eumeu Sène dafa wone wu ni bëgg naa ko ba ñëw daan Eumeu jël ko moom la mu doon xëccoo jël na ko Ama Baldé nag lii làmb bii moo koy def làmb combat bii moo ko war a def làmb mooy bu daanee buntam yëpp dana ubbeeku dana nekk ci mbër yi comme ni Modou Lo seeree këram ak am ay soxnaam ak yori otoom ak yori beem ama boobaa làmb ji bu ko daanee noonu la koy ubbile mm-hmm. te yaakaar naa nit nag doo gis sa buntu wërsëg di ko sàggane da nekk na combat boo xam ne na ci nit ñi tey bu baa a baax a baax damay gis ñu baree bari bari di jox Modou loo fabiri ci kombaa bu ëpp donte nag moo ko njëkk ci làmb wala moo ko gën a gën a ñam lu neex muy roi bi mbir wante na ci nit ñi tey bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te ñu bari jàpp na ni Ama Baldé parewul abo Ama Baldé pare na de noppi na sax laa lay wax. Mm-hmm. noppi na làmb nag dafa nekk loo xam ne làmbatu la ni wax. dafa stratégie li français day wax naa stratégie sunum njàng France nag kiiwul wante na ngeen jégal ci baati ni yàq stratégie day am ama lëlu gim lëlu stratégie kese la mm. mi ngi ci boppam de ci boppam kese lay nekk Ama Baldé ñàkkul fayda gis nga làmb mujj li mu ko mën a jaral bu blessé woon da koy arrêté ndax Modou Lo fii arrêté na jàpp nañ ko ba mu war a ñëw Modou Lo arrêté ko joxe ngànt ama bu am man ngant da koy baare day bàyyi làmb ji ba keroog muy wér ndax xam na ni lii roi la lii du caaxaan. mbër mu ndaw mi bëree bu daanee ba tokki plateau bi li muy njëkk wax roi des arènes. Hmm. kon amaa nag bunte àddina xam ne ko foyee wante lii may wax waa kër Modou Lo yi amaa pare na de. Hmm. Modou Lo nag gis naa ko mu ngi entraîné wante ci côté mystique bi des naa pare. Hmm. Modou ci côté mystique bi des naa jekk ci côté mystique. ci côté mystique bi dese naa jekk te seen jàkkaarloo bii ñuy waaja def bitim réew. Mm. na fa maytu moom Modou Lo ma ngi dem bitim réew ante na maytu foofu. dinan ko fa defaat beneen kambal boo xam ne jëmmi Ama Baldé moo koy kàmbal kàmbal boo xam ne bis bu ko jàppee foofu ah dañ ni làmb ji amaa ko yàq waane boobaa yàq gi mën naa jóge ci moom de. Mm. mën naa jóge ci Modou boobaa seen jàkkaarloo bii ñuy waaj a def bitim réew. wante li ma lay xamal mooy dina nekk combat boo xam combat bu neex la beneen bi topp li nit ñi yaakaar tamit doo am. du ci am ah, de. Mhm. combat te man abu damaa ragal gëm-gëmu doomu aadama. gu ah. dëggu. ci kan laa ko ragale ci booy ñaa laa ko ragale xel laay wax ak doomu aadama gis nga booy ñaa da doon def signature Balla Gaye ñëpp naa dafa réew kii ak réewande mën na kaa daan ñëpp jépp ko wante gëm-gëm bi mu am ci la ko suñu borom dimbalee mu daan Balla Gaye jël bu rafet jël boo xam ni kenn mës sa gis ku ko daan Balla gëm-gëm boobu amaana gëm-gëm bu ko raw la yor ndax ama moo njëkk a takku Balla Gaye moo njëkk a takku Modou Lo eh, eh, Balla boo eh, Boy Niang ci ci Balla Gaye nga xam ne ama ba mi tëkku Modou yàgg na maa ngi seedaan image yoo xam mbuur la woon ba ko bàyyi bàyyi ñoon naa ko taxawal fii ku la laal ma nangamtaan loolu dafa yàgg ñuy sànnante ay ndënd maa ngi seedaan làmb yoo xam ne tey jii ni mook bàyyi pël bi bi Modou Lo indee bàyyi pël ama di ko xuuxal yeew mi Modou Lo naa ko day simbu loolu yàgg na. kon gëm-gëm boobu kooku mu ngi bëree poulet maanaam xam nañ kii yàgg-yàgg moom lay bëreel. gëm-gëm boobu dafa am solo de. nit ki même bu ko gëmee. entraîné sans gàllaaj mën na cee génn. te nantee ci ci làmb joj Moodu mën naa am surprise bu mag ci Ama Balde. donte nag Ama mën naa am surprise wante moo war a gën a bëgg combat bi. Hmm. surprise mën na ci am de ndax làmb ji kee da ko doon pare pour mu yàgg. ba mu ko paree yàgg na de Modou nag fi nii moo gën a am problème ci làmb ji danoo journaliste yi sa mbokki journaliste dañuy wax na ama parewut ama nangam waaye Modou gën a am problème ci làmb ji xam nga lu tax mbër mi la yàgg liggéey ay at yàgg laa préparer ay at kooku yow nga dem ba seen làmb taxaw. Hmm. yow ngay door a jóg. kee jekk na day gën a defaru yow nag dangay toll ci defar. yow Modou day toll ci di defaru amaa nag day gën a di defaru hmm. lii ñu def nii stratégie la dara dalu ko. bu nu ci yàlla bàyyi jàmm moom dana pare la cinq moom xuma Modou dul pare wante Ama dana pare la cinq mhm. <laughs> jërëjëf Cissé kàddu yooyu am na solo lool lool lool sax ci ci làmb ji ah, ginnaaw ci euh, dama lay laaj nag ci li nga xamante ne nii euh, mooy ci diggante Ada Fass ak Zoss waaw nantee ci combat boobu nit ñi tamit danoo jox Tapha Tine favori bu ëpp Eumeu Sène ci ñooñu la aay contre Bombardier làmb ji nga naa dañuy rey Eumeu Sène Eumeu Sène boobu jour boobu lay daan mbër ba nga waaru ci moom gis nga lomb làmbam ak Bombardier ñëpp dañ ni bu ko Bombardier dooree day dee ndax amul garde mm-hmm. gis nga keroog bi mu jàppee Bombardier dafa mel ni nag way rendi rek fàqat ko muy tertari ku ku musta daan Bombardier mbër musu koo def Bombardier moom mu ñu def ko mm-hmm. nante ci làmb ji de te tafaatin dafa am bëre bu muy bëre boo xam ne dafa arrangé Eumeu seen mooy tafaatin day taxaw ne joddu loxo yi ca kaw ba pare tafaatin bu ko mbër mébee moom du def nii de du wàcc waat loxo bi de day day def nii nii lay def loxo yi te loolu Eumeu seen day am fort pour jàpp tànk bi te bis bu Eumeu Sène amee tànk bi ah mën na noonu ñibbi waat de ante mbokki tafaatin yi nan bàyyi xel loolu ma leen wax mooy Sénégal sax laay wax jox nan tafaatin favori ba mu ëpp wante Eumeu Sène mën naa daan tafaatin ci lu gaaw ci lu yomb hmm. nan ci bàyyi xel te man fii ma lay wax ni Eumeu Sène laa jox favori ci kaw tafaatin hmm. fii ma lay wax ni Ama Baldé laa jox favori ci kaw Modou Lô même Modou na fonk tànkam yooyu hmm. na fonk tànkam bis bu bis bu ko bàyyeeg booy bi booy day dem tànki de waaw <laughs> ah, lu leer laa lay wax nag <laughs> mais Ah, ah, ah Ada Fass nag wax dëgg yàlla Ada Fass li nekk ci moom bu nekkee ci moom bu ne li war a nekk ci moom bu ci nekkee laa ma jooy warta mat une minute daanaka jot a commentaire bis bu ko sos daanee nag bay boo ma tekki ngembam te dem muuru muuru ji waaw moo tax làmb jo ëmb lu ma ci wax ndax du làmb joo xam actualité la xale la ak mag kon xale mooy def xale mag def yu fi xale mooy mooy dem attaqué ko bëre mooy diriger ko daan ko mag mi mooy daanu waaw gis nga ay Balla Gaye ñëpp gis nga booy ñaa mi ak Balla Gaye dafa diriger jàppale daan la jóge fa Ada Fass làmb ji mën na kaa ubbilaat mu ñëwaat ci làmb mën ubbilaat mu ñëwaat ci làmb mu bokkaat ci làmb mm-hmm. te Ada mbër la mm-hmm. mbër la loolu askan bi naan bàyyi xel ne Ada mbër la moom moo xaw a am benn affaire boo xam daa nekk ci moom rek wante bu gëman boppam mm-hmm. gëmën boppam respecté ay entraînement fonk doomu aadama yi koy yàlla booleel ak ñi koy suivre billaahi lu mbër di lekk ci làmb nakaa lekk am na saay-saay mbër yor na jikoy mbër yor na gabari mbër te suñ borom may na ko mbooloo fu mu woote dañuy wuy te naa la xamal yaar de moom bu doon dëkk di def ay biti sa mbooloo du ko bàyyi daa am mbër yoo daa am doomu aadama xam na xeeti bayre yoo xam ni des fois suñ borom da koy defal doomu aadama loo def ay ñaawteef mbooloo mi dañ lay gën di topp mbooloo mi dañ lay gën di bëgg gis nga Ada Fass wax jee fi nekk ñii nekk ci làmb ji sax dañ kaa bëgg dañ kaa bëgg ñii nekk ci làmb journaliste yeeg ak ñii promoteurs yi tëgg làmb sax dañ kaa bëgg te moom boo waxee ñu ne Ada Fass mbër mu sikk la mbër mu nangam da ngay dégg ñu ne ah, waaw mbër mu sikk la pare di ko seetaan di ko suivre kon loolu ak mbëggeel mënu kaa wees wante bu bu defaroo làmb ji mooy buntam bis bu ci génnee ak jàmm yàlla xam na ni respecté ay entraînement ak i ak doomu aadama yi di nungoo diglu ay conseil def boppam mbër mbër da ngay xam ne mbër la sëriñ da ngay xam ne sëriñ nga mbër da ngay mbërantu di def yëfi mbër ba ku la gis xam ne kii am mbër la sëriñ da ngay def yëfi sëriñ ba ku la gis xam ne ab sëriñ nga loolu mooy jëfi doomu aadama mbër nag bis boo mbërantoo mm-hmm. ku la gis xam ne mbër na loo dugg ci wàllu mbëre di ci génn wante boo bàyyi sa demee nag demen dem ci demenu jàmbur mm-hmm. da ngay am problème Ada Fass xanaa xam Mm-hmm. desee na cee jekk ci doole ci mystique yëpp dese na cee jekk day bëreek mag rek wante bu doon naataangoom lay bëreel làmb ji da koy ñàkk ndax Ada Fass tànkam yi kii liggéeyu ko tànk yéen xamante ci aada faas nga gis muscle yi yëpp dagg nga gis yëpp prix gi dagg yëpp dagg non gis duñ ko nag waxtaan wax dëgg cel alxuraan laati gis ko ci kombaa bi mhm. mag lay bëreel mën naa daan mag mi te loolu lañ koy ñaanal wante bu paree na dem liggéeyi mhm. bu paree li ma koy conseil moom aada faas bu jógee ci làmbi sos ji na dagg bi biyam dem France wala Espagne mhm. dem na ji lëlu bu ñëwaatee fii nii kum jàpp ci bu ma naataangoom yi day mën a bëreeg ñoom te làmb koy indiwaat làmb da koy fay waaw. Ah. jërëjëf sëñ Cissé kàddu yi am na solo lool ci waxtaan bi xam naa Babacar li ñu amoon ci émission jërëm mais ñu tëjee rek ci li nga xamante ne nii tey jamono ji sëñ Cissé gis nañ mbir mu seytaane ak rab ngelaw sonal doomu aadama yi lool ci réew mi ba jamono jii ba daal ñu mu bëri ay gàllankoor ci ñu mu jàpp ay nit. nag moo sonal doomu aadama yi. Mhm. rab moom mooy dem ba jàpp doomu aadama yi. gis ñoo xam ne tey jii nii li may wax chaque jour rek daanaka boo gisee ñi nga xam ne tey jii dañuy di dara sax muy ñaare boo xoolee ba ci biir rab koy def wala nga dugal ay kayit di xaar ñu woo la mun ñu laa woo yooyu yëpp rab da koy dem ba def ko téye ko ñii yaakaar gu tas gi ni def dafa say eh, cat da koy def wante boo xoolee ba ci biir raban ca wante rab tamit nee naa la li ci njëkk muy gis nga aw xanaa xamoo ne place bu bees sax boo ko ubbee bala ngaa ubbi war ngaa li si xaar place bi ba xam am na ñu fi nekk wala amuñu fi nekk kër gii ma lay wax am na ñu fi nekk wante la la tax nga nekk fi yow ba tabax yow yaay dindi la fa nekk defal leen lan bëgg nga mën a ñëw tabax dëgg la yow bu dee boutique nga yor parfois nga gis borom boutique boo xam ne day jaay mel ni kuy gëna dellu ginnaaw kooku daa xoolu la nekkee ca place ba ndax am na loo xam ne ma nga ca place ba bokk moom dëkk loolu rab da koy def bu dee ki nga xam ne da am na ñoo xam ne nag dañuy tëdd ba guddi di saw magi jëm mm-hmm. loolu rab da koy def am ñoo xam nag day jàpp seen ŋaalo bopp bii muy metti mm-hmm. des fois mu jàpp seen jëb yi loolu signe rab la mm-hmm. am na ñoo xam ne nag day jàpp xale jigéen ñi ba bun dee sëy ak seen soxna seen awra awray soxna yi commencement bi day tooy waan bu demee ba ci digg bi awra bi day wow nga xam ne sëy bi day metti ci ku jigéen ki da du neex ci ku góor ki loolu rab da koy def rab tamit day def awra góor góor di xool awraam bi tey mu gis ko mu rëy lool mhm. suba mu xool ko mu tuuti wala mu jàpp ko mu rëy lool ngoor mu jàpp ko mu tuuti mhm. rab ba koy def day delloo awra dem ba peeral ko ba mu mel ni yëfi xale mhm. rab da koy def gaawa a daanu di sëy jigéen di gaaw a daanu rab da koy def toog ba si yàgg di mer sib sone kenn bëgg a xuloog moom rab da koy def yeewu sa xol naqari lool wala nga yeew sa xol du neex nga xam ne tey jii nii dangay jooy di yendoo jooy boo jooyee ba pare di yeddaat sa bopp lan la rab ba koy def rab da lay jàpp ba sa bërëbu liggéeykaay des da ngay tàyyeel war a xëy sax mel ni dañ lay téye la bul xëy wala boo demee sa bërëbu liggéeykaay da ngay énervé wu da ngay gaaw énervé wu rab koy def rab yooyu yëpp qualité rab rab da lay foloo yow ku góor ki ba nga daano ci sa awra mm-hmm. nga pare di réccu di jooy ba jigéen sax day foo ci awraam ba daanu jóg sangu ji wala ba pare di jooy rab da koy def wante yii ma lay wax qualité yi rab la ak yeneen yoo xam dina ñëw ci benn émission mm-hmm. leeral ko ba mu leer nañ boobaa ñu jël suñu temps wax leen qualité yi rab wante yii ma lay wax nii mm-hmm. képp koo xam ne am nga si ñii ma lay wax boo ñu woowee bu dee moo nga ci bu soobee yàlla dinañ la ci teg ci programme boo xam ne mm-hmm. incha allahu dinañ la ci def ay ñaan ak i sarax ba suñ borom di dëkku ndax nee naa la yow mi dëkk di sobe mm-hmm. sobe day gàttalu fan sëñ Tuubaa wax na ko mm-hmm. te sobe même boo ubbi ka ubbi laalan ubbikaay yu gën ci àddina day sobe tamit ah mook seroo yam rek boo yoroon kaaraange yi gën ci àddina tey tey def sobe tamit moo kii yam ndax sobe baaxul sobe baaxul alxuraanu karim ji moo gën a foor lépp te boo yoroon sobe waroo kaa laal kon sobe baaxul mm-hmm. wante yii ma lay wax kum dal ku nekk rek mm-hmm. boo ñu wooyee bu soobee yàlla incha allah mm-hmm. daan la ci defal ay ñaan ci li nuy suñ borom may ba suñ borom seddal ko ak jaam bu dee lun mën a faj la danaa la mën ko bu dee lun mënu la danaa la mënu ko ndax kenn matalewul lépp wante yàlla may ne doomu aadama nag lu baree baree bare jërëjëf sëñ Cissé mais euh, ci côté li nga xamante ne mooy jamono ji ci côté ngóora néew kattan tamit day arrivé jamono ji ñu baree baree bari waa garabu ngóor kàttan sax waroon naa kaa génne waat ko wante am naa ci yoo xam ne <coughs> wax dëgg yàlla <coughs> mën naa laa xam ne sax naar yi ñoo ëpp lu koy jënd ndax dama koy yóbbande ba Dubaay mm-hmm. ak côté Maroc googu mm. laa ëpp lu mu ko fay yóbbu ndax daa am ñoo xam ne ñoo ma fa nekkal ñoo xam ne dama koy def ci GP yóbbu leen ko mm. wante képp koo xam ne ngóor a dalaa dal rek dangaa yëg ni yow dangaa perte doole da ngay waaj a manqué sa kàttan mm. yëg ni lii bokkutan ci yow rek boo ñu woowee incha allah dinañ la jox garab yoo xam ni amul benn jafe-jafe ndax toog naa fii sëriñ ni leen sëriñ bu leen di wax ne lii dama koy jaay xool leen ba xam dañ la ci lekk du ci lekk toog naa fii bu leen seetaanee émission yi jàll mm-hmm. ma leen koy présenté garabu ngóor ci bu ci mëq man noonu laay lu ma war a jox nit ñi dama ciy lekk ba pare mm-hmm. door door kaa wone wante bu dee da ngay gaaw a daan wala booy sëy doo yëg bànneex wala sëy mi bu dee sëy mi tey jii ni awra bi day Eh, nekk lu rëy ak a tuuti wala yooyu yëpp boo ñu woowee rek ci wàllum ngóora danaan la wax garab yi nga koy faj ak nan ak nan ngay def ba suñ borom saafara ko bu dee koo xam ne nag moom daanaka bu tëddee day gént gént ñaaw yëpp yooyu xeeti rab la sii ñi la wala koo xam ne bu tëddee du mën a neew yëpp xëy yooyu tamit si ñu rab la wante képp koo xam ne suñu borom def na de da nga néew kàttan boo ne wooy incha allah mm-hmm. danañ la jox garab yoo xam boo ko utilisé wo yaakaar naa képp koo déggati mu am problème danga ko woo mm-hmm. te nee naa la kër gu ndaw daa am kër gu mag am mm-hmm. kër gu mag goo fa dee mën nga fay def lu ne nit ñi di gis wante kër gu ndaw kenn koy gis mm-hmm. mooy yow ak sa soxna kër gu ndaw nag boo fa melut na nga fa war a mel daanaka jigéen du la ko muñal beneen bi si topp damay lancé ñi nga xam ne dañuy dem ci jabari jàmbur am naa jëmmi secret boo xam ne muudu muud yi nag laa koy laa koy wax yéen ñi nga xam ne yéen a takk ay xale xalay ndaw dem tukki bàyyi fi seen soxna nga xam ne seeni soxna dañuy mujj ba góor yu yées yi dem bay ànd ak ñoom di njaaloo ak ñoom te seeni soxna duñ ko bëgg ndax jigéen ni weeni sëgge noonu la xel mi sëgge képp koo xam ne takk nga soxna bàyyi ko fi moo xam dangaa nekk senegal gi wóolu woo sa soxna wala nga nekk bitim réew mën naa laa defal loo xam ne tey jii nii du ma la wax naa sa sàkkara nga koy laale sax turu ndaw si nga may yónni ak turu waajuróomu jigéen ma loo xam ne ci mala laa koy def képp koo xam ne tëdd na sa soxna awraam day am problème day amee jafe-jafe kooku moom noppati naa euh, jublu ci awraam lu baax mm. awraam moom nopp noppati naa cee noppati na cee jëfandikoo képp koo xam ne am nga soxna wóolu wóola ko wala nga takk soxna bàyyi fi di ko fiirale xale yu góor yi boo ma yónnee turam ak turu waajoon dinaa la ci liggéey loo xam ne ku ko tiimati awraam day yàqu te ku ko tiimati bu paree du du nekkati góor mm. du jar du nekkati dara day dox nii rek wante dara nekkatu fa kon loolu dama koy lancé ndax mooy gi dafa bari njaaloo jabari jàmbur yi dafa bari tool nan foo xam ne góor ñi jabari jàmbur lañ gën a bëgg ci ab gel sax kon loolu nan ci bàyyi xel loolu loolu dafa nekk loo xam ne lu yoon la te sariya digle na ko lislaam digle na ko protéger sa jabar ba du mën a njaalo loolu bàkkaar euh, tiyaaba sax nga ci am ndax wëlbati sa xelum soxna ba xelam du nekk ci mooy ba xelam góor gu nekk ci mooy tamit boo ñëwee doo ci mën dara loolu baax na hmm. jërëjëf sëñ Cissé kàddu yi am na solo lu ñu amoon ci ay minutes jeex na rek nga tàggatoo ak mbokku internet Actubuzz TV. waa ñoo ngi santaan ñëpp di wax ni kàddu yi lu ci jub suñu borom la moom mi nga xam ne moo yor sunu bu neexan ma egg lu ci dëng lu nekk rek ah, ñun jàmb xeebu bii la di wax ne ñoo ngi toroxluwaat seen kanam bu baax di leen ñaanal tamit yàlla defal leen jàmm di ñaanal waa bitim réew su sunuy yaay nuy rakk sunuy mag nga xam ne danoo bàyyi seen njaboot bàyyi seen rakk ñëpp. yàlla defal leen tawfeex ba ñibbisi waat seenum réew mm-hmm. ndax tukki neex na waan ñibbisee ko dàq mm-hmm. kon nag yàlla na ñëwaat ci jaam mm-hmm. te nu bañ a ñëwaat ci ay jafe-jafe di ñaanal suñ Muntaxa Basiru suñ borom gën kaa dëgëral yàggal ko fi lool te muur Mbàkke di ñaanal tarixa yëpp ti yaan xaadir laay ndeesin ñëpp suñ borom gën ñu gën fee yàgg di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm sax ndax jàmm rek a fay musa am moo fi njëkk moo fi mujj maa ngi jéggalu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni gàmm gi ñu jógee yàlla na suñu borom def bu déwénee mu fekkaa ñu si jàmm yàlla étape ba nga ku nekk étape ba nga nekkan suñu borom jëlee la yóbbu la étape bi gën ci yow ci barke Seexul Xadim ñoo ngi wàcc foofu suñu di wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala